daa leen jaamu mbokki internet yi ñuy safoo di seetaan suñu Actu TV tey nag ñu doori xibaar yi ak ki nga xam ni moo di Ndeye Khady Ndiaye moom mii nga xam ne ràññeewoon nañ ko torop si coowal ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ak koogee di Adji Sarr moom mii di Ndeye Khady Ndiaye nag ginnaaw ba nga xam ni waa mafia kàcci kàcci ñi ngi ko doon defar benn kañot kañot boo xam ni war naa toog si fukki million maanaam dix million ginnaaw ba nga xam ni boobee kañot nag dafa mat ñu daal di koy jébbal moom mi nga xam ni moo di Ndeye Khady Ndiaye waaye biñ ko koy jébbal nag moom mii di Ndeye Khady Ndiaye toogoon nag di di def benn interview boo xam ni daf ko jagaram li nga xam ni métit bi nga xam ni mi ngi koy dund ginnaaw ba nga xam ni wax na dëgg bi am si diggante Ousmane Sonko ak ki nga xam ni moo di Adji Sarr moom mi di Ndeye Khady Ndiaye jamono ji nee na mi ngi dund ay menaces yoo xam ni ñu bëri dañ koy woo di ko ko menacé maanaam mi ngi dund ay coono yoo xam ni mosu koo dund si àddunaam ba tey moom mi di Ndeye Khady Ndiaye génn na fa ay histoire yoo xam ni nekk na ay ay histoire yoo xam ni dafa triste trop trop si ab jigéen niki noonu nag moom mi di Ndeye Khady Ndiaye ba tey tey mooy wax nee na amoon na benn biskat ki nga xam ni moo di Adji Sarr mu joxoon ko benn supp benn supp boo xam ni moom mii nga xam ni moo di Ndeye Khady Ndiaye ginnaaw ba mu ko naanee daf see mujjee jëlee coono bu mag coono boobee nag ginnaaw ba nga xam ni demoon na hôpital fàtte woon na sax supp bi nga xam ni Adji Sarr joxoon na ko ko ginnaaw boobee nag médecin bi nga xam ni moo ko doon seet nee na lii nii dañ laa jox loo xam ni da nga koo dugal sa biir bi ginnaaw boobee nag moom it di Ndeye Khady Ndiaye ba mu xalaatee ne ki ma mujjee jox ma rek mooy sama empagateur boo di Adji saal ginnaaw boobee nag moom mii di Ndeye Khady Ndiaye sa nga mujjee woon xam kat moom mii di Adji Sarr supp ko joxoon amoon na benn affaire boo xam ni defoon na ko si nekk koo xam ni marqué na ko torop torop si ki nga xam ni moo di Adji Sarr nekk koo xam ni ba tey moom mii di Ndeye Khady mooy def ay seede si ki nga xam ni moo di Adji ginnaaw ba xam ni tuumaal na Ousmane Sonko si loo xam ni moom mi kat nee na tegu ko fenn te Adji Sarr képp koo xam ni yaa ngi koy wax ak baaxam yaa ngi koy jaay Adji Sarr nekkul benn jigéen boo xam ni dafa méritoo kenn di ko wax bu baax en tout cas Adji Sarr nekkoon na benn jigéen boo xam ni amul yar amul teggin kon ngeen dégg ne Ndeye Khady Ndiaye moo def seede yooyee ginnaaw ba nga xam ni ni nga ko doon jébbal li nga xam ni moo di kaño bi nga xam ni waa mafia kàcci kàcci ñi ngi ko doon cotiser ànd si ak Sénégal yu bëri yoo xam ni ñi ngi koy jàppale ba tey moom mi nga xam ni moo di Ndeye Khady Ndiaye nee na mi ngi sant bépp Sénégal ngir taxaw bi nga xam ni taxawu nañ ko ko moom mi nga xam ne moo di Ndeye Khady di Ndiaye ba yenn saa yi dina dox a dox a dox ba tase ak benn sénégal boo xam ne daf koo xàmmee daal di yëkkati xaalis bu bëri daal di ko koy jox ginnaaw ba nga xam ni ne dañoo jàppee ci yi nga xam ni moo di étéré boobee nga xam ni moom ma doon daanee dooreem nekk loo xam ni métti na ko trop trop parce que salon massage boobee nekk na loo xam ni moom it di Ndeye Khady Ndiaye si la yaakaaroon ngir di si dund yi nga xam ni moo di ak ay njabootam waaye ginnaaw buñ ko tëjee nee na moom amul loo xam ni benn coono boo xam ni amee na ko si ngir taxawaayu ñi nga xam ni ñoo di ay sénégalais te pare saa yi sax dina dugg si benn bitig daal di fay jël yi nga xam ni moo di ay marchandises yoo xam ni war naa mat si cent mille mu daal gis koo xam ni nekk koo xam ni daf ko sopp bëgg ko toog daal di koy fayal war muy doxa doxa dox comme ni maan ko waxee woon war a sax weer bi dee kenn daal di koy yëkkati téléphone am daal di koy wow daal di koy envoyé xaalis bu bëri boo xam ni dina si mën a dund waree nag nekk ay baatu sant yoo xam ni moom mi di Ndeye Khady Ndiaye moo ko yëkkati di ko jëmale si kaw bépp Sénégalais ba tey ñu teg si ki nga xam ni moo di international sénégalais bii nii nga xam ni moo di champion d'Afrique bii nii ñu koy woowee Sadio Mané Sadio Mané nag moom xam ngeen tey ji ki talaata ji doon na def benn tournée foofee ca dëkkam boobee ca Casamance foofee ca dëkkam boobee de Bambali ginnaaw ba nga xam ne gagné woon na li nga xam ne moo di coupe d'Afrique bi ànd si ak ay naataangoom. ginnaaw boobu nag moom mi nga xam ni moo di Sadio Mané ba muy def euh, vacance vacance boo xam ne jamono ji bépp jour yaa ngi koy def gis nañ ko mu jël yi nga xam ni moo di coupe d'Afrique bi daal di koy yóbbu foofee ca Bambal yi ginnaaw ba nga xam ni interview yi boobee doon na ko def moom mi di Sadio Mané nee na mi ngi jaajëfal képp koo xam ni yaa ngi doon ab doomu Sénégalais war nga doom war nga doon ab doomu bambara ngir taxaw bi nga xam ni yaa ngi ko koy taxaw nekk koo xam ni manqué wu benn yoon li nga xam ni moo di ay soutien te moom mi nga xam ne moo di Sadio Mané yéene bi nga xam ne am na ko ci Sénégal ak foofee ca dëkkam boobee di bambara mooy ñëpp di dund ci jàmm ak hôpital yi nga xam ni tabax na ko fa kër nga xam ni yaatu na nekk benn kër gu taaru boo xam ni moom mi di Sadio Mané moo ko tabax ki nga xam ni moo di yaayam ngir jaa jëfaree ko ko ci sonn bi nga xam ni sonnoon na ko si moom kon ngeen dégg ne moom mii di Sadio Mané tey jii demoon na seeti ñi nga xam ne ñoo di ay famille yi nga xam ne ñoo féetee foofee ca Bambey waaye ba mu leen nag ñi nga xam ne ñoo di waaw Bambey daal di koy teeru teeru boo xam ne xumb na torop moo xam mag moo xam ndaw moo xam góor war jigéen ñëpp a génnoon si mbedd yi di ko jaajëfal moom mi nga xam ni moo di fierté Afrique bi moom mi nga xam ni moo di fierté Sénégal bi waaye ba tey ñu des si football bi ñi nga xam ni ñoo di Lion Sénégal yi di gaynde Sénégal yi ñoom ñëpp ñi ngeen gis ñuy passé seen ginnaaw ba nga xam ne def nañu ay saison yu baax moo xam si équipe nationale bu Sénégal war a foofee ci seen kër bi yooyee kin si gën a ràññee moo di moom mi nga xam ni moo di Iliman Ndiaye moom nga xam ni passé na ay vacances am fii nii si ba tey moom moom mi nga xam ni moo di Pape Matar Sarr ñu gis ko muy passé li nga xam ni moo di vacances am ba tey moom mi nga xam ni moo di Bouna Sarr ba ngi passé li nga xam ni moo di vacances am ànd si ak mbégte bu mag waaye ba tey ñu tourné si wet ka daal dafay gis ki nga xam ni moo di Keita Diao Baldé moom mi nga xam ni nag tamit mi ngi passé yi nga xam ni moo di ay vacances vacances am ñu leen di ñaanal vacances su jàmbur te suñ si jugee saison yi nga xam ne ñu ngi koy jubbuwaat mu nekk ay saison yoo xam ni mooy génn si ñoom foofu te ñu ngeen di ñaanal ba tey suñ fi jugee daal di dem jël yi nga xam ni moo di coupe du monde bii waaye nag ñu jeexaree ko ak ki nga xam ne moo di Adama Bos te nekk léegi moom nekk benn nit koo xam ne ñu bëgg si ñu ko gën a ràññee moo di ab saaga moom nag gis nañ ko si ñaari vidéo yoo xam ne benn bi doon na si attaqué ki nga xam ni moo di sëñ Mara Niass beneen vidéo bi nag ñu gis ko muy attaqué ki nga xam ni moo di président Macky Sall ngir gisante bi nga xam ni may na ko ki nga xam ni moo di Kaliphone ñuy def benn interview boo xam ne ñu bëri si Sénégal yi dañ koo naqaru waaye ñu ko ki nga xam ni moo di sëñ Mara Niass moom mi nga xam ni moo di doomu aadama mi nga doon attaqué ay attaqué yu métti ginnaaw ba nga xam ni kat moom mii di sëñ Mara Niass na si benn euh, euh, vidéo ne ki nga xam ne moo di Daba Boye dem bi nga xam ni ak génn àdduna bi nga xam ne génn na ko àdduna moom mii nga xam ne moo di sëñ Mara Niass yàgg yàggoon na ko wax parce que suñu nemmeekoo si ay vidéo yoo xam ne doon na ko def nee jamono yi dinañu gis benn sëriñ boo xam ne fii nii si Sénégal à bientôt dina génn àdduna ni ki noonu nag daal di génn di moom mi nga xam ne moo di sëñ Mara Niass bu doon sax dogoo gis waru koo wax parce que tamit ki nga xam ne moo di Daba Boye nekk ab sëriñ ngeen ko gën ràññee moo di ab seetkat moo tax moom it di Adamo mi ngi attaqué bépp sëriñ boo xam ne yaa ngi def jëf yu mel ni rawatina ki nga xam ne moo di sëñ Mara Niass su beneen yoonee dootu ko darati parce que lii tamit dafa ñaaw si moo xam ne mi ngi tooru Sénégal parce que tamit moom mi nga xam ne moo di sëñ Mara Niass nekkul benn nit koo xam ne rudo lay ut bës si gaañu bi nga xam ne moom mii di Daba Boye gaañu na ko ba tey ñu jeexale ko ki nga xam ne moo di Kaliphone ak ki nga xam ni moo di président Macky Sall ñoom ñaar gis nañu leen si benn vidéo ñu si def benn interview interview boo xam ne ñu ngi ko doon amee foofee ca France waaye nag nekk loo xam ni métti na torop moom mi nga xam ne moo di Adamo ba mu si doon attaqué ki nga xam ni moo di Kaliphone rawatina ki nga xam ni moo di président Macky Sall parce que président Macky Sall li nga xam ni doon na ko si Sénégal nekk ab kilifa kon kenn waru koo gis muy def jëf yu mel noonu te Kaliphone nekkoon benn exemple boo xam ni war naa toog ak ki nga xam ni moo président ñuy def benn vidéo boo xam ni doo comprendre ni ki noonu nag am na ay journaliste yoo xam ne sax gis nañu leen ñu koy attaqué ba tey moom mi nga xam ni moo di Macky Sall ginnaaw ba nga xam ni defoon na boo xam ni doon na ko defal ak ki nga xam ni moo di saagakat bu mag bi xam ni moo di saagakat international bi ki nga xam ni moo di moo nekkoon koo xam ni doon na ko saaga ay saaga yu métti wara nag ginnaaw ba nga xam ne gis nañ ko moom mi nga xam ni moo di Macky Sall ak Californie waree nekk ñu bëri parce que président Macky Sall li nga xam ne ñu bëri si Sénégal yi ñu koy sikki saaka ndax xàmmee na Kaliphone am xàmmeewu ko ndaxte su ko xàmmee woon est-ce ko tëj ñii naan moom mi nga xam ne moo di président Macky yi nga na ko saaga ba nga xam ne koo bàyyi di commencé di saaga Ousmane Sonko moo tax mu ànd ak moom waaye aussi mënti am yéen mën a joxe seen commentaire président Macky Sall daf koo xàmmee am xàmmeewu ko ak yéen nan ngeen a yi nga xam ne moo fi joto xew si ay actualité kon mbokki internautes yi jaa ngeen jëf mi ngi noonu di képp koo xam ne abonné goo nga abonné te ngeen aimé vidéo yi joxe seen commentaire fii la si suñu Alpi TV information bi fi jugee di ngeen ko fi mën a am jaa ngeen jëf.